les les Modici euh, ñoom Ablaye Wade ñoom Ousmane Ngom ñëpp se sont retrouvés en prison mm. il y avait un motif clair mais BIPA mis à part l'affaire Ousmane Sonko beaucoup de leaders de ce parti-là se retrouvent en prison pour des délits d'opinion Fadilou Keïta poste Facebook euh, Bassirou Diomaye Facebook euh, Biram Souley des propos qui ont dérapé El Malik euh, Odio ak tant d'autres personnes aujourd'hui qui se retrouvent en prison euh, xawma dañuy instruire xawma pour des délits mineurs yoo xam ne bu ñu ko àtte woon en flagrant délit amaan na ñu relaxé leen wala ñu dóor leen sursis ñu dem seen yoon euh, le jeune Yarga Sy mhm. euh, impliqué dans l'affaire euh, de la de la du du pseudo empoisonnement dossier bi kenn instruire ko le boy le, le jeune il, il il toujours en en prison est-ce que jotul tamit ñu alerter ñu alerter sur ces sur ces dérives là da ngay gis man gis naa Cheikh Omar Diagne diffamation ñu yóbbu ko en instruction Euh, téye ko foofu plus de trois quatre mois et aujourd'hui les Cheikh Omar Diagne les Karim Xrum Xax tous ces gens là se en prison en fait affaire dafa commencé di di di interpeller est-ce que jotul ñu ñu alerter la justice sur ces dérives là kaso léegi dafa yomb ci ñu yóbbu fa nit même même pour les journalistes aujourd'hui oui euh, xam nga loolu un moment euh, dama ci defoon benn benn article wax ne en fait Sénégal dañu commencé di def lu may wooyee des peines de contre façon à dire dañ lay dóor benn peine de prison mais c'est une peine de prison contrefaite nan laa ko expliquer mooy dangay def benn mbir par exemple am na un moment ay xale euh, parodier woon journal L'Observateur donc ñu jàpp leen pour loolu le corps du délit et là donc buñ nee da loolu ñu def noonu délit la mais li ñu parodier ak lépp mu ngi fii donc nit ñaa ngi koy gis mu ngi ci internet bi c'est accessible xam nga loolu laajul instruction mais lu mel noonu il est clair que boo demee ci benn juge de siège nga présenté fa xale boobu en flagrant délit daf koy dóor benn peine de sursis dans le pire des cas libéré ko maintenant li ñu seetlu mooy de plus en plus maintenant état du Sénégal dafa utiliser beneen procédé mooy da ngay ñëw def délit boo xam ne c'est un délit mineur diffamation la wala wala ñu accuser la de de je sais pas quoi mais c'est un délit mineur boo xam ne ce qui est mooy boo demoon devant un juge de siège il va pas te condamner il va pas te condamner lourdement écoute ñu jël dossier bi yóbbu ko instruction donc ñu yóbbu ko instruction bàyyi la prison pendant très très longtemps parfois après au bout de six mois sept mois ñu ñu jox la benn liberté provisoire l'affaire ne même pas jugée alors que tout le monde sait que ci mbir yooyu procédure yi ñu tàmmoon gis Sénégal mooy boo defee loolu da dem flagrant délit wala nga dem correctionnel ñu juger la Euh, sentence bi tombé soit nga purgé wala purgé woo nga dem sa yoon mais li ñuy def nii pour man c'est des peines de contrefaçon et pour man c'est pas de la justice c'est une parodie de justice donc justice bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk encore une fois muy ndénkaane ci ñoom waxuñu leen njortuñu ci ñoom xaaruñu ci ñoom ñu koy utiliser pour régler des problèmes personnels et ces peines de contrefaçon yi nga xam ne de plus en plus moo tax euh, beaucoup de d'activistes ou d'hommes politique nekk en prison nit ñi war nañ cee jóg xeex ko war nañ cee jóg wax ko war nañ ko arrêter ñi nga xam ne dañu nekk aussi dans la justice di ci liggéey parce tamit Euh, li may wax les premiers défenseurs de la justice aujourd'hui ce sont les magistrats ce les gens yi nga xam ne ñoom seen liggéey mooy administrer la justice donc ñoom aussi am nañ ay organisation yoo xam ne war nañ jóg ci lii parce lii tamit ku li olof di wax rek ku waxul dëgg. wax kat mu ngi jëm ci oh, dérive oh, en fait. Oh, ba mu tàmbalee yàgg na mu ci dérive ba mu tàmbalee may mun je pense que il y a six ou sept mois j'ai écrit un article pour dénoncer ce que j'ai appelé ces peines de contrefaçon parce qu'en fait c'est des peines de prison que personne ne prononce. c'est le procureur ki décide de prendre dossier dem jox ko juge d'instruction bu ko joxee juge d'instruction ñu yóbbu la prison nga toog di xaar di xaar sa instruction boo xam ne kenn xamul fan lay mujj donc bu dee yenn délits yi au bout de six mois ils sont obligés de te libérer mais six mois en prison pour loo xam ne bu ñu la ci jugé woon doo jël sax une semaine de de de de prison mais loolu c'est ce que j'appelle des peines de contrefaçon donc les gens sont en train de contrefaire de contourner, euh, les, de contourner les, les procédures judiciaires pour indi loo xam ne ñu ko fi gis euh, prenons les les les les les problèmes de diffamation avant da nga doon gis ne boo amee problème de diffamation avec un tiers euh, que mu nekk autorité wala mu nekk leneen daf lay def benn citation directe bu la defee citation directe ngeen retrouver au tribunal bu ngeen taxawee juge bi déglu ko déglu la bu dee yow indi woo les preuves juge bi condamné la et puis condamnation bi gën a rëy en général mooy six mois avec sursis mais léegi da ngay gis ku ñu accusé diffamation ñu yóbbu ko prison ne dañuy def instruction donc loolu pour man c'est une peine de contrefaçon en tout cas euh, war nañu taxawaat xool mbir yi ni muy demee parce que nul n'est à nul à l'abri bien sûr de ce de ce de de de ce type de dérive parce que olof daf ne ah? euh, jamono àdduna dafay wëlbatiku xam nga booy def loo xam ne defuwul nga jàpp ne li ngay def defuwul ëllëg mënul ñëw loolu dal sa kaw mooy ne euh, da nga manqué d'imagination am na benn borom xam-xam bu buy wax ne en fait Anatole France bu ne le courage c'est un manque d'imagination mais defe naa ñi am fitu def yooyu c'est parce que en fait amuñu imagination ils s'imaginent pas que dans euh, six mois sept mois dix mois je sais pas un an mbir mi mën na wëlbatiku donc damay wax encore une fois may mun a dëkk dañ koy gérer ci principe suñu bëggee dëkk bi avancé et premier principe bi nga xam ne ñun en république dañu jàpp ne ñëpp dañu ci war a jàpp respecté ko mooy euh, les sénégalais sont égaux devant la loi maanaam bu yoon taxawee ñun ñëpp ñoo ci tolloo dayoo mais bu ñu demee ba ñu mën a contourner procédure yi pour nëbb ay nit jant bi euh, euh, li ñuy wax rek mooy làq sa doom